ndax dañu toog dañu toll ci société boo xamante ni valeur la ñàkk te valeur bi nu gën a ñàkk mooy jikko te yonent bi dafa waxoon innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yàlla dafa ma yónni ngir ma defar jikko yi nit pour conscience mën a tranquille pour mu mën a baax dafay fekk jikkoom baax jikko jooju nag nga xamante ne moo yàqu moo tax nit ñi di def loo xamante ni duñ ci bàyyi xel léeg-léeg nit dina jëf jëfin boo xamante ni bàyyi ma sax lu ko jëf loolu nag li koy waral mooy crise de valeur yi nu manqué te waroon dellu ci alquran ak sunna te delluwuñ ci moo nu teg lii ñu tegu waaye l'islam moom fekk na mu àddu ci bu yàgg te bu fekkoon ni ñoo ngi jëfe l'islam di def santaane l'islam kon yaakaar naa lii nu dal du mu dal bismillahi rrahmani rrahim iqra bismi rabbika alladi xalaq